أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi ànd ak yéen ci kitaabu tawxid toll ci bunt bi paase dars bi tegu ci mooy qawluhu taala ayushrikuuna ma la yaxluqu shay'an wa hum yaxluquun wa hum yuxlaquun fi borom bi subhanahu wa taala di wax ne ndax dañuy bokkaale jël ki bindul jël lu bindul dara lu defalul dara lu sàkkul dara di ko dendaleek borom bi subhanahu wa taala te loolu ñuy def ñooñu ñu koy defal ñooñu dañ leen a sàkk bu ñëwee ci jubluwaayu dars tey bi min ahdafi dars day leeral jullit ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abdun jaam la surifa bir risaala jaam la bu yàlla terale ak yonent loolu dañ koy jàng ci darsu tey bi ne yonent bi jaamu yàlla la bu yàlla terale ak yonentam def ko ndawam loolu dañ koy xam ñaareel mooy an yastanbita al muslim min al xadis an al hidaaya bi yadillahi taala xadis bi ñuy jàng tey li ci jullit bi di jële dëgg mooy mu xam ne njub ci loxo yàlla la nekk njub nekkul ci loxo yi kenn ki yàlla bëgg a jubal mooy jub ku yàlla jubalul doo jub yàlla nañu yàlla jubal ñetteel mooy an yastadilla al muslim ala butlaani ibadati xeyrillah dina bokk ci jubluwaayu darsu tey bi mooy jullit bi war a am dalil ay tegtal yu koy won ne jaamu kudul yàlla perte la ku jaamu ku dul yàlla rek perte nga bu ñëwee ci xadis bi muy darsu tey bi wa fi lxadis an anas qaala sujja annabiyu sala allahu alayhi wa sallam yowma uxudin wa kusirat rubaiyatahu fa qaala kayfa yuflihu qawmun sajjuu nabiyahum fa nazalat laysa laka min al amri shay'un suratu ala imran wa fihi an ibnu umar radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية في رواية يدعو على الصفوان ابن أمية wa suhaylin ibnu amrin walxaaris ibnu xisaam fa nazalat laysa laka min al amri sheyun mbokk yi xadis bi ñuy jël tey daf ñuy jàngal ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent la de moo fi gën moo fi gën a màgg moo fi gën a tedd moo gën ci mbindeef yi waaye nag léeg-léeg am lu ko dal te du ci mën dara loolu daf lay wan ne mbindeef la comme yow ni nga nekkee mbindeef loolu daf lay wan ne moom jaam la comme yow ni nga nekkee jaam ay mbir di ko gaar du ci mun dara walla sax mu bëgg mbir moomu ñu fajal ko ko te du faju ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam loolu dañ koy jàng tey ñëw na ci saxiix soo déggee saxiix mooy buxaari walla muslim ñaari téere yooyu loo ci jàng lu wér la anas ibnu malik mu ne mu ñuy nettali mu ne sujja nabiyu dañoo toj bopp yonent bi sujja yonent bi dafa dem guerre xare ñu dóor ko ba mu daanu casque bi mu soloon mbaxne bi casque comme yooyu borom scooters yi sol loolu daal di tañ ci bopp bi ba mu toj ñu damm bëñ bi óom yi xureeku te mooy yonent te mooy muhammad kañ la loolu xew ban xare la woon mu ne yawma uhudin bi su uhud nga xam ne keroog rey nañ ñu bari ci lañ rey hamza ci lañ rey mus'ab ibnu umayr keroog rey nañ saxaaba yu bari lu ko waral mooy yonent bi dafa leen joxoon ndigal ñu bañ a jëfe ndigal li bi leen yéeféer yi waree ndomba dóor yi métti caw yi jaas yi métti ba yonent bi li ko ci dal dal ko bopp bi toj bëñ bi damm óom yi xureeku mu ne wa kusirat rubaiyatahu ñu daal di damm ba ñu yonent bi allahu akbar bi loolu amee fa qaala kayfa yuflihu qawmun sajjuuna bi yow mu ne yonent bi ne naka la ay nit yu def nii seen yonent di texee ay nit yu dóor seen yonent taalibe bu dóor sëriñam lu ngeen ci wax oo kam xanka di gasi taalibe bu dóor sëriñam bu dee tukulóor yi ñu ne oo koy gay ni xanka di bu dee olof ñu ne kii nag pare na kii wàcc na liggéey kii moom wala taalibe bu dóor sëriñam de ah dafa ñaaw na de ah ay nit yu dóor seen yonent nag ba toj bopp bi damm bëñ bi xuri oom yi yonent bi ne naka la ay nit yu def seen yonent lii di texee ay nit yu dóor seen yonent ba toj bopp bi damm bëñ bi naka la ñuy texee xanaa yàlla war naa mer de ah wala kii dóor yonent yàlla muhammad toj bopp bi damm bëñ bi loolu lan la ci yàlla war a wax xam nga lu yonent bi li ci yàlla wax bi loolu amee yonent bi wax wax ji naan ne nit ñu def nii seen yonent naka la ñuy taxee yàlla ne ko laysa laka min al amri shay mbir mi du sa nekkul sa mbir nekkul ci sa loxo texeeg dugg aljanna dugg safara nekkul ci sa loxo de gis ngeen yàlla fekkee yonent bi lay tont xanaa lii nit ñëpp waroon nañu wax ne ah ñi koy safara lañ jëm waaye xoolal moom mu ne naka la nit ñuy def nii seen yonent taxee yàlla ne ko laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir allahu akbar mbir mi moomoo ci dara mbir mi nekku sa loxo ba yow lu la metti rek wala yow loo bëgg rek daa di am déedéet gis nga ñiy def la lii bu ñu tuubee sax ma baal leen allahu akbar kon lii mooy ñuy wan ne yonent bi mbir yi nekkul ci loxoom mbir yi nekkul ci poosam mbir yi nekkul ci sañ-sañam bu lu mu bëgg rek mooy am déedéet kooku xadisu anas la xadisu ibnu am ibnu omar radiallahu anhu mu ne man de damaa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaquul ida rafaa raasahu min arruku yonent bi di julli su rukoowee ba siggi ci rukoo bi rukoo bu mujj ci julli fajar julli fajar ñaata rakka la ñaar su defee benn ba dernier rukoo bi fi muy siggee yonent bi def xunuut mu naan yow yàlla allahumma la'an fulaan yàlla yàlla nga rëbb diw yàlla yàlla nga rëbb diw muy ñaanal yéeféer yi lu bon ginnaaw bu waxee simi al kañ lay ñaan ñaan googu bu waxee simi allahu liman hamida ba wax rabbana walakal hamd muy rëbb ñooñu ginnaaw uhud ñooñu ñooy ñooy ñi ñi doon rey jullit ñi bisu uhud bu yonent bi ñu bisee mu mere leen mu leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla alak aaya bi daal di wàcc yàlla ne ko laysa laka min al amri shay mbir mi du sa loxo mbir mi nekkul sa mbir mbir mi nekkul sa mbir mbir mi du sa mbir mbir mi mbiru yàlla beneen riwaaya ba tey buy wax ci yoon wii rek mu ne maa dégg yonent bi muy ñaanal ñii alkande wa fi riwaaya yaddu ala safwaan mu naan yow yàlla yàlla na nga alak safwaan ibnu umayya wa suhayl ibnu amrin wal haaris ibnu hisaam mu ñaanal ñetti ñii fa nazalat laysa laka min al amri shay ba tey yaa aaya bi daal di wàcc yàlla ne kon mbir mi du sa mbir kon ñetti riwaaye yi damm nañ ba ñu yonent bi bisu uhud toj bopp bi walla yonent bi da doon julli ci julli suba ginnaaw ruko bu mujj muy ñaan ñi walla mu ki dégg muy tudd turu ñi ñett yi bu ci mën a am benn tontu la ko yàlla tontu mooy lan mbir mi du sa mbir loolu moo lay won ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li muy tedd tedd yépp nekkul ne lu mu bëgg rek yàlla def ko xoolal ñi ci gën a garaaw ñii defoon lii muy Xaalid ibnul Walid muy Hind ñii dañoo tuub ba mujj a bokk ci ponkalu saxaaba yi daanaka Xaalid moo tas islaam ci golf bi te Uhud keroog moo tax jullit yi ñu gañe leen Hind moo rey Hamza moo ko reylu yemu ci bañ ko rey ba pare mu ñëw tiim ko di ko daggati dagg ba dagg sexe bi am na ñu wax sax ci ulama u siira ne dafa xar dënn bi daal di lekk xol bi xanaa loolu garaaw na de moo tax yonent bi ba mu tiimee ñu def papaam noonu Hamza mu xool moom liñ ko def mu ne nit ñi def nii seen yonent naka la ñuy texe moo tax mu waral bu demee julli suba muy xunut di leen ñaan yàlla pour ñu alko waaye xoolal li mu ñaan yëpp terewul ñooñu ñëpp yenn wàll gi yàlla baaxal leen ñu tuub wala programme yonent bi mooy yàlla na leen yàlla alak programme yàlla mooy ñii dañuy tuub dama leen di baal anasiru dars bu ñëwee ci élément wu leçon bi ñu yëg ne ar rasul abdun min ibadillah li ñuy njëkk a jàng mooy kon yonent bi ndeke jaam la ci jaamu yàlla yi ni nit ñi nekkee ay jaam noonu la yonent bi nekkee jaam balaa muy nekk yonent jaam la ba pare sharafahu llahu bi risaala waaye yàlla teree la ne ko yonent gi taraanga la pour moom yàlla moo ko ko terale ginnaaw ba mu nekkee jaam ba yàlla xam ne kii sama jaam la yàlla tuddiku ci alquran ci ay place yu bari ne kii jaam la abd subhaanallazi asra bi abdihi تبارك الذي نزل الفرقان على أرأيت الذي ينهى عبدا وأن وإنه لما قام عبد الله ba yàlla xamee ne yonent bi jaamam la yàlla teral ko jox ko yonent gi yàlla di ko jox wax yu jibril di wàcc ci moom yàlla sant ko na ko jottali nit ñi wa haadihi manzilatun azim mbokk yi loolu lu màgg la wala lu ndaw la yonent bi taraanga yi mu làq benn jaam la suñ ne yow nga ni man jaam laa ak yàlla ne yow sama jaam nga ban moo ëpp martaba ah yàlla ne yow sama jaam nga yow mun nga ni man jaam laa yow yaa ko wax waaye yàlla bu la xoolee ba ne la yow sama jaam nga kooku garaat la ah loolu benn la loolu takk na ko ci garaat boobu martaba boobu waaye yàlla terale ko mu nekk yonent ndax loolu beneen martaba hakay ñetteel watal xoo al wahyu wahyu di wàcc ci moom alquran di wàcc ci moom jibril di ñëw di wàcc ci moom alquran ndax loolu du martaba waaye yàlla yónni ko ne ko demal nga wax ak nit ñi ne maa la yónni loolu martaba loola du martaba bu benn waaye ñëwoon sa kër ne président moo ma yónni présidence laa jóge léegi looy yëg loolu martaba loola du martaba kon ku yàlla yónni ne waxal ak nit ñi nag wu ne wa ma ahaza lii lépp fa huwa laa yamliku li nafsihi nafan wala daran lii lépp mu am mënul indil boppam njëriñ mënul dàqal boppam lor kon keneen nag bu dee yonent bi lii mu takk lépp lii mu am lépp mënul indil boppam njëriñ mënul dàqal boppam lor lan moo koy wane lan mooy wane loolu lan mooy wane loolu ci dars bi ma jàngale léegi ah dégguma bu baax non non lan mooy wane ne yonent bi mënul dàqal boppam lor mënul indil boppam njëriñ lu koy wane ah déedéet déedéet lu koy wane ah ba mu ñaanee lu koy wane yéen da ngeen fee toog mais nekku leen fi lu koy wane ah lu koy wane ci ginnaaw lu koy wane borom kurus lu koy wane lu ko wane dañ koo dóor ba bopp bi toj damm bëñ bi xuri óom yi dañ koo dóor ba mu daanu bisu Uhud ñu rey ay saxaabaam yi rey papaam ah lu tax lu tax loolu dàqalu ko dàq ko waxul duma dal man yonente laa yàlla ma yónni ñu dóor ko ba mu daanu ba mbax na bi tañ ci bopp bi benn saxaaba bi ñëw doon dindi mbax na mi bi mu màttee xëcc ñaari bëñam dafa ne dañoo deñ ñu damm bëñ bi loolu moo lay wan ne moom munul dàqal boppam lor munul indil boppam njëriñ lu koy wane lu koy wane munul indil boppam njëriñ maa ngi ñëw de lu koy wane dafa ñaan yàlla ne ko li nga ñaan duma la ko may yàlla yàlla na nga alak diw xoolal te fan la ko ñaanee ci julli moo tax gis ngeen il faut ñu am importance ci julli yoon di bu mu doon ñaan xunut rukkoo ah rukkoo bu mujj mu taxaw ñaan wala sujjóot bu mujj kon il faut ñuy jox importance julli ñaan suñuy ñaan surtout soxla yi ñu koy dugal ci julli surtout sujjóot bu mujj wala rukkoo bu mujj ah lépp julli yëpp déggu mu ne la julli suba la ko doon def julli suba déggoo mu ne la xadis bi mu ne an ibnu omar radiallahu anhu samia rasul saa sallam yaqulu ida rafa raasahu min alrukuci fi rakaati alaxiri min alfajri julli fajar bu siggee ci rukoo bu mujj muy ñaan yàlla lan lay wax mu ne yàlla yàlla nga alak diw yàlla yàlla nga alak diw waaw da nga ci dugal allahumma rek comme bu dee rabbana atina fi dunya hasanata xam nga alquran la nga ni allahumma rabbana waaw allahumma nga ciy dugal dootul nekk alquran xam nga rabbana atina fi dunya hasanatan nga ni allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina nga ni allahumma rabbana hab lana min azwajina gis nga dootul nekk alxuraan léegi ñaan la allahumma nga ciy def boo amee rabbana kon yonent bi ndeke li ñuy jàng ci dars bi mooy yonent bi ndeke li muy tedd tedd yépp du su ko lu ko neex mu am du lu mu bëgg am du lu ko naqari du ko dal ndeysaan munul indil boppam njëriñ mënul dàqal boppam lor loolu dañ koy jàng tey te mooy mu ngi nii gis ngeen wan naa leen ko ñaareel mooy ibtilaa ur rasul yàlla day nattu yonent bi li muy foor foor nag yàlla daf koy nattu ar-rasul basharun yonent bi li jiitu mooy mbindeef la mbindeef yonent bi du malaayika xam nga tey dafa bokk ci li yàq Sénégal jël nit ëppal ko mbindeef ñaatoon ngay dégg diw ñu ne ñu ne du nit non kooku du nit non bokkul ak nit ñi nag lan la malaaka la ah, naawul de diw du nit ah, tooñ nañ ko parce que mbindee fi nit moo ci gën wala xat karram naa bani aadama daal nee na mbindee fi ñu gën ci nit kon bu ñu la nee doo nit rek yow xas nañ la saa yoo bëggee tàgg nit nga ne ko doo nit xas nga ko képp koo wax doo nit war na laa dóor sone parce que daf la xas ñaareel yonent bi ginnaaw ba mu nekkee mbindeef ni mbindeef yi juddoo la juddoo dafa am ndey ak baay wala wala dañ koo parasité mu jóge kaw asmaan cëppeelu déedéet dafa am ndey ak baay yu sëy ñu ëmb ko mu judd ni nit ñiy juddoo ñu ngénte ko mbindeef la bachar judd nit ñi ñuy juddoo mu dund ni nit ñi dunde daan toog weer cin du tàkk këram daan tëdd guddi du mun a nelaw ndax xiif mu génne de wér ci mbedd yi daan feebar daan am ay njab ci njabootam ñu dee dégg ngeen sax yaayam ak papaam niñ teele dee gisul papaam ay at yu néew yaayam faatu maamam faatu soxnaam faatu Khadija gis ngeen nattu yi waaye muy liggéey di sàmm commerce kon mbindeef la waaye nag lii dal mbindeef yi ci ay nattoog jafe-jafe da koo dal mooy li ma lim léegi muy xëy doo am dépasse comme yow ni ngay xëyee doo am dépasse muy xiif comme yow ni ngay xiife muy feebar comme yow ni ngay feebare muy mar comme ni ngay mare muy am ay jafe-jafe ba du mën a toog këram mu génn di fanaan ci jàkka ji wala muy dox ci mbedd yi sallallahu alayhi wa sallam muy feebar ba bi muy génn àdduna ci feebar la génnee àdduna sibbiru ay musiba di ko dal ni muy dalee nit ñi ay jafe-jafe di ko dal ay problème ba ñu toj bopp bi damm bëñ bi xuri óom yi kama xasala fi gazwati uhud comme ni mu xewee ci uhud loolu nattu la bu ko yàlla natt te loolu yàlla bi mu koy def mu ngi koy def ci loxo noonam yi noonam yi ñoo ko def loolu ñoo ko dóor ba daaneel ko toj bopp bi damm bëñ bi xuri óom yi li yépp daf lay jàngal ne li muy foor foor moom yonent bi mbindeef la mbindeef la soxla yàlla sax di ñaan yàlla ne ko duma ko nangu wala sax yàlla ñi ma def lii yal na nga leen yàlla ne ko déedéet mbir mi du sa mbir bu ñu tuubee ma baal leen ba ñooñu ñenn ci ñoom mujj a tuub nekk ay kàngam ci lislaam wa rasul sallallahu alayhi wa sallam wa afdalul xalq te moo gën ci mbindeef yi saydul mursalin mooy sangu ñi yàlla yónni yàlla di ñu won martabaam wa annahu abdullahi wa rasuluhu jaamu yàlla la yonenti yàlla la waaye nag munul dàqal boppam lor munul indil boppam njëriñ ba yàlla ne ko wa laysa lahu min al amri shay'un mbir mi du sa mbir fala yajuuzu kon al xuluwu fii kon nag yonent bi kenn warul ëppal ci moom kenn warul ëppal ci moom léeg-léeg nga dégg ñu ne yonent bi yàlla leeram la ko bindee loolu du dëgg yàlla bindeewul yonent bi leeram de léeg-léeg nga dégg ñu ne yonent bi beneen leer la ko yàlla bindee loolu wérul yonent bi li ko yàlla bindee wax nañu ko lan la yàlla bindee yonent bi suuf si ak ban fan ca aadama kullukum min aadam wa aadama min turab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyi ko aadama ci suuf la bàyyi ko kon yonent bi fi ko yàlla bind mais léeg-léeg nga dégg ñu ne ci Sénégal sax ci Sénégal ci sunu sëriñ yi nga dégg ñu ne diw bokkul ci aadama bii de moom ci beneen aadama la bokk ñaata aadama moo am ci àdduna léegi ñaata aadama moo wallaahi moom bokkul ci aadama bii ci beneen aadama la bokk loolu pour lan la ñëpp ci aadama benn lañ génne aadama alayhi salaam jeex na kullukum la yàlla wax kullukum kullukum min aadama wa aadama min turab yonent bi ci aadama mooy baayam mooy maamam mooy baayam yonent bi ni yàlla bindee nit ñi la ko bindee waaye nag yàlla moo yor teraangaam teral ko ba mu gën ñépp képp kuy noyyi di dukkat ci kaw suuf nekk mbindeef yonent yàlla muhammad moo la gën kon nag kenn warul ëppal ci moom fi ko yàlla yemloo tamit lañ ko war a yemloo yonent bi du nit yonent bi nangam yonent bi yaa déedéet déedéet eggul foofu parce que yàlla waxul loolu ci alquran waxul ne yonent bi ci beneen aadama laa ko génnee waxul yonent bi maa ngi ko bindee ci beneen leer déedéet ci aadama mii la ko génnee jeex na dañ koo ëmb amina mooy pap mooy yaayam abdallah mooy baayam ba muy judd ñëpp xam nañ ko bi mu juddoo nekk lii sax maamam moo ko fab leewu ko ñëw wër kaaba gi juróom-ñaari yoon daan ne sammaytuhu muhammadan tuddee naa ko muhammad ñépp ne ko lu tax mu ne la yakuna mahmudan bayna samai wal ard ngir mu nekk ku ñu gërëm diggante asamaan ak suuf ah kon kay ana leer boobu ana leneen yeneen yooyu yëpp ay wax la mbokk yi moom yonent yàlla muhammad kenn waru ko yëkkati lu raw fi ko yàlla teg moo gën ñëpp nag ku nekk am nga daraja ci yàlla am nga foo yem hatta jibril sax gis ngeen li muy foor foor am na fu mu yem keroog ba mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam guddi laylatul isra wal mi'raj dafa dem dem dem dem dem dem dem ba benn place mu ne yonent bi awma droit passé fii fii laa mën a yem wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum amul kenn ku nekk ci ñun malaaka yi lu dul am nga barab boo xam ne amoo droit passé ko mu ne awma droit passé fii yonent bi ne ko nan laay def mu ne ko dama nga yëg ci ascenseur bi mu yóbbu la ci sa borom yonent bi yéeg dem ci yàlla waaye loolu lépp nag est-ce que yàlla la ah est-ce que day nekk yàlla du yàlla de yonent bi du yàlla yàlla mooy yàlla yonent bi jaam la waaye moo gën ñëpp moo tax mu ne anzilu naas manazilahum ku nekk nañ la teg fi nga yem bu fekkee yonent bi moo am fi mu yem kon ñi ñeneen nag keneen waxi noppi kenn du ëppal ci moom fa ida kaana waa loolu dafa am wutee ñaari xadis la xadisu abbas ak xadisu aïcha yonent bi abbas dañ ko laaj ndax yonent bi gis na yàlla mu ne waaw abbas ñu ne Aïcha ndax yonent bi gis na yàlla mu ne déedéet ku ne yonent bi gis na yàlla day fen boroom xam-xam yi ñu ne lu tax abbas wax nit ñi ne yonent bi gis na yàlla Aïcha ne yonent bi gisul yàlla ñenn ñi ñu ne abbas mag la bim ne yonent bi gis nga yàlla yonent ko ne waaw Aïcha xale la bi mu ko nee yonent bi mu ne yonent gis nga yàlla da ko ne déet ndax bu ko nee woon gis naa ko mu ne ko nu mu mel nu mu mel parce que xale la waaw xam nga kuñ naan gis na ko gisu ko kon sori na fa de ah kon dem na de kon kenn werantewul dem na ah kon kenn werantewul na yegg na lan la ñuy werante gis na ko gisu ko kon sori na waaw ñaari wute yooyu ñoo ci nekk mbokk yi ñett li ñuy jëlee ci sunu darsu tey durusun mustanbata min al ahadis al baab ñetti hadis yi leçon yu ñu ciy jëlee bu njëkk mooy anna rasul sallallahu alayhi wa sallam basar laa yaalamul xayb yonent bi saa sallam mbindeef la xamul kumpa yonent bi xamul luy xew suba kan moo may leeralal loolu fii ne yonent bi xamul luy xew suba ci leçon bi ñu jàng léegi da ngeen yaakaar da ngeen ñëw toog fi rek ma bàyyi leen ah non da ngeen ciy bokk damay wax kay ngeen di tontu hmm, biñ ko dóoree su xamoon ne su xamoon ne su ma demee dañ may dañ may def lii est ce que day dem kon xamul luy xew suba su xamoon ne Uhud bu demee ñu rey Hamza rey Mus'ab moom ñu dóor ko mu daanu ñu toj bopp bi damm bëñ bi ndax day dem kan ci ñun mooy xam ne bu ma demee xare ñu gañale nga dem waaye waaye sëñ bi nañu wax dëgg waaye kenn du ñu xam ne doo dem ñu lay duma ngay dem ban mbër mooy xam ne bu ma demee ñu daan ma ma dem wax leen kon yonent bi jaam la ku tedd la waaye xamul luy xew suba moom sax moo ko alxuraan sax daf ko wax xam nga lu mu wax law kuntu alamul xayba lastaksartu min al xayri wa ma massaniya su su ma xamoon suba luy xew kon lu bon du ma laal kon lu baax rek laay am waaye yonent bi xamul luy xew suba léegi na nga gis Sénégal ay bandi yoo xam ne dañuy dañuy ñëw ci rajo bi di wax luy luy waxuma la luy xew suba mais luy xew ñetti weer waaw waaw nan dañuy seet di gisaanee na di wax luy xew suba di wax diw nangam suba ginnaaw suba deret dina bëri nangam dina tuuru diw dana lii te yàlla nee na laa yaalamul xayba man fi samawati wal ardi illa allah kenn xamul suba luy xew suba ci loxo yàlla la nekk malakal mawti imaam Malik dafa gént gis malakal mawti imaam Malik ñi waa ki waa Sénégal di wax ne mooy seen sëriñ te du dëgg Sénégal nee nañ ci ngirum Malik lañ nekk wala wala waaw kon Malik mooy seen sëriñ waxuma alaaji Malik de alaaji Malik ak imaam Malik du benn imaam Malik mooy sëriñu alaaji Malik ak sëñ Touba mooy ki nekkoon ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa gént gis malakal mawti mu ne malakal mawti ñaata atama fi dese ma dee mu ne ko nii lii ñaata la juróom ne ko nii juróom ah imaam Malik daal di tiit mbaa du juróomi fan mbaa du juróomi minute mbaa du juróomi seconde mbaa du juróomi weer mbaa du juróomi at mu tiit muy wëral muy te xamul lan la muy wër ku ko koy leeralal man de dama gént gis malakal mawt ma laaj ko lu ma fi dese mu ne ma nii ndeke malakal mawt daf koo tontu fin wu suratul luqmaan suratul luqmaan bu ngeen fa demee bu saar bi di waaj a jeex juróomi aayeeng fa yàlla di wax ne kenn xamul luy xew kumpa kenn xamu ko kuro juróom yooyu ndeke imaam Malik li mu laaj malakal mawti dafa bonk ci juróom yi yi malakal mawti xamul moo tax mu ne ko nii juróom juróom yooyu mooy lan mooy daa bokk ci juróom yi ma xamul ndeke malakal mawti sax am na lu mu xamul léegi nga gis waa Sénégal ñoom koo xam ne xam na lépp léegi-léegi bi may ñëw ci oto bi maa ngi wax wax ak si chauffeur bi dañuy dañuy dafa taal rajo bi benn waaye di publicité ci benn rajo man maay doc docteur boo xam ne mun naa faj feebar yëpp ma ne ko day fen feebar yëpp mun naa koo faj feebar yëpp déedéet da nga naan mën naa faj nangam mën naa faj nangam waaye feebar yëpp ah waaye sëñ bi ma ne ko day fen kooku dama wax nga dëgg de man ko kii day fen feebar yëpp mun naa koo faj waaw ñun la ñun la parce que ñun ñoo na sax ñun la ñun ñoo nekkul ñu normal ba pare su waxee loolu ba pare joxe numéro téléphone nga xëy suba dem kooku am na feebar boo xam ne moom mënu ko faj feebaru ñàkk xaalis waaw c'est que nit ñi sénégalais yi fi mu nekk nii wallahi alazim bu ma neexoon balaa ginnaaw suba ma nekk sëriñ bu mag maam xaas duri ndax ma leen de billahi wallahi taala su ma neexoon ma def ko jeune bu ñëw xam naa lu ma lay def lu ma looy sa problème yéen ñi toog fii xam naa seen problème fi mu ne ko tukki rek laa bëgg tukki man maa ci gaaw ñëwal maire bu ñëw xam naa maire yi lu seen problème paa yi ku ñëw xam nga yu safar ba xale jigéen yi ku ñëw lu- jëkkër la bëgg naa sëy rek paa yi kasaalik société bi boo xamee lan la ñu fax jëm rapidement nga nekk sëriñ tey benn xale bu góor gu ñëw sol jiinam ñëw karaj karaj ne la sëriñ dama ñëwoon pour nga seetal ma nga ne kër ne ko ah eh, lii de yoon la kii yoon bu ubbeeku la yow yow ku am wërsëg nga yow say rey nga ko loo ko wax suba mu indi mu indi dama ngeen di xar mu ñuul bu ma la sangee nga dem kooku bu demee day fitnaal papaam day fitnaal yaayam day fitnaal ay mbokkam puisque li ko waa ji wax nit ku da ngaa war a tukki te moom tukkee nekk ci bopp bi te nee nañ ko yoon bi a ngi nii ubbeeku nga ubbeeku na lu muy nag xale bu jigéen bi ñëw nga ne ko yokk yaag sa waa ji yàgg ngeen ban xale bu jigéen moo fi amul far wax leen ma ko xale bu jigéen bu amul far Sénégal wax leen ma ko wax leen ma ko ñoom ñu yemay far ku ñëw nga ne ko yow pourtant waa ji bëgg na la de bëgg na la takk sax mais dafa am ku ci ku ku ku ci laxasu mais mun na mun maa mu mun na eh, jeex na lii la lii la gars yi xam rek problème yi lañ xam problème yi situation yi nit ñi nekkee li ñu bëgg wala jeune bi nga ñëw nga ne ko yow liggéey nga bëgg jàng na ba pare yow jàng nga pare mu ne mu ne la waaw waaw jàng naa dem naa ba fu nekk am naa nangam nangam kooku la koy wax nga bëgg lan la bëgg lu dul liggéey ñun la ñun kese ñooy ay dof gars yi di ñu xoolal problème bi gën a rëy da ngay jóge fii Dakar nga dugg oto 4x4 nga dem ba ci ginnaaw kilikoro nga fekk fa waa joo xam ne ci néegu ñax la nekk nga ne na régler sa problème te moom problème am réglé wul parce que télé ak sonn moo tax mënul ñëw Dakar télé ak sonn moo tax muy fanaan ci néegu ñax wala kay nga dem ba nag yii non gis ngeen maara bi ma dem ci der lay tëdd maa ngi jégalu man noonu laay raisonné su ma la gisee ngay def rek dama naan kon fajalal sa bopp kon ma fajal kenn.
mais looluy dëgg nit noonu lay def
keroog dégg naa ci benn reportage bu ñu ko waxee benn journaliste bi dafa dem di gars yi intérêt yi dafa dafa
amitié noonu la dafa bëgg.
waaw mooy ñi jàpp ak der yeeg beeg yi waaw dafa dem waaye ñu jëmale rek di ko takk da ngay bëri xaalis.
waaw da ngay si.
waaw ñu doon day nangam nangam.
waaw léegi bu benn après bu ñu commenté mu ne moom lu ko jaaxal mooy ñoom ñu koy jaay. si si biir amuñu xaalis ñoom.
ah der bi da nga koy jaay ku ko takk boo ko takkee siiw boo ko takkee am xaalis te yow nga ñëw ba ci buntu stade amoo sax kanting nga lal sa der toog di jaay jóge ba Niger wala Nigeria waaye yéen sam sëñ bi mais xel mu nang wir këng yow nga romb ñëw tax ah der bi ñaata mu ne la 300000 nga xaaral ma ñëw xam nga ne yow wéro kii kii xoolal fi mu jóge ne la boo takkee der bi am xaalis moom lu tax takk ko kan moo leen xam buñ sii woon kay duñ ñëw fii léegi nag nit jullit jullit moom dafa war a yeewu jullit moo tax alxuraan aaya yi genn wàll gépp lan lay wax la aayatin li ulil albaab borom xel yi ngeen war a yeewu xel lu muy jëriñ ah xoola yow ki nga fekk ci digg àll bi amul lu mu lekk amul lu mu naan ci der la tëdd amul courant néegu ñax kër gaa ngi waaj a daanu ci kawam nga ñëw naan ko man ah nangam nangam kër kër kër kër mu ne la xaaral ma ñëw et puis gars yi dañoo xam sénégalais yi sénégalais bu ñëwoon rek nga ne ko ñaanal ma mën nga mën a bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ayatul kursi yi waa sa xewal kooku xelam du dal bu ñëwee nga ne ko demal ngay ni mus mu ñuul kooku xar mu ñuul kooku béy bu ñuul nga bàyyi ba 3 heures du matin na nga def attention nag dégg nga li ma la wax defal attention parce que gis nga am na ñoo koo xam ne moo ko waxee nor dafa musiba da koo dal gis nga terroriser la bàyyil ba digg guddi mu nga digg guddi nga génne di sangu ci sele bi yoon guddi ah nga futteeku wala ngay wër guy yaru yaru ndaal di wër guy kenn du la defal sëriñ yi du la defal lu sedd kenn doo ci dem ba mu ne la demal nga julli ñaari rakk nga jàng fatiha qul wallahu ayatul kursi yi boo paree nga ñaan yàlla koo wax loolu danaan dootu fa dellu si man ah kii ma dem ba ci moom amul lu ma wax lu dul jàngal ayatul kursi yu ayatul kursi yu jàng naa ko ba mokk awma dara lan la ñuy wax waay wallahi waaw ayatul kursi yu ayatul kursi yu ñëpp ko mën moo tax nag gënu sa sarax loolu la wax nee na ñi dem si marab bi ñu xel.
ñu xelu nit ki naka la mun ñàkkal boppam wërsëg jox la ku amul lu mu lay maye wax na dëgg faaqidu shay laa yuti kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi li njëkk ñu xam moom xamul kumpa loolooy lu njëkk waaye faqat hada allahu subhanahu wa taala haulai salaasa xam ngeen tax yonent bi xamul kumpa mooy ñett ñi yonent bi doon ñaan ci julli xoola yonent bi rek ñaanam bi ay ci biir julli ñett ñi ay jullit lañ yàlla ma leen tuubloo ñu nekk julli wala fuñ mujje yonent bi di ñaan yàlla yàlla leen yàlla alak yàlla jubal leen ñett ñëpp dañoo tuub nekk jullit kon yonent bi est-ce que xam na suba luy xew ku toll na yonent mu toog nii ñaan rek danger la waaye mu bàyyi bay julli fajar julli suba rukkoo bu mujj mu siggi ci rukkoo du tudd seen tur naan yàlla diw diw diw yàlla nga leen alak ñooñu yàlla tuubloo leen loolu moo la yonent bi xamul luy xew suba léegi nag bu fekkee yonent bi xamul kuy xew suba xamul luy xew suba keneen nag keneen waxi noppi mbokk yi wallahi yeewu jot na te ñii waxuma rek dañoo tuub waaye wa xasuna islaamahum seen lislaam dafa rafet ba boo jàngee téere yi gis ñu li ñu wax ci ñoom allahu akbar ñaareel mooy adamul yasi min hidayati l kaafir gis nga boo dëkkeeg waaye benn waaye lu mu saay saay saay saay lu mu bandi bandi bandi bandi lu mu kàccoore kàccoore kàccoore bis mën na ñëw mu tuub bàyyi loolu xel bis mën na ñëw mu tuub ba raw la ci lislaam moo tax bul gis nit nga ne ko yow dootoo baaxati mbaax ci loxo yàlla la nekk bis bu ko yàlla tourné mu raw la fi mu nekk nii am na ci ñun ñoo xam ne ci lislaam lañ judd seen juróom-ñaari maam ci lislaam lañ judd waaye am na ci ko am na ñoo xam ne barki démb la ñu tuub ñooñu raw nañ leen ngay gis tuubeen koo xam ne dafa tuub raw ku judd ci lislaam te waa ji dafa tuub tey boo jàngee histoire monde bi nga gis ay anglais ay américain ay français ay ay ñoo xam ne dañoo tuub waaye raw jullitu tey waxuma la sax raw leen mais gën leen xam lan mooy lislaam wala Rosé Garaudy xoola Christophe Yusuful Islam ah xoola ay Mike Tyson ay ñoo xam ne tey ñoo gën a xam jullit yi nga xam ne seen juróom-ñaari maam ci lislaam la nekk te dañoo tuub kon bul gis yéeféer mukk ba nga ne kii dootul tuub tuub ci loxo yàlla la nekk ku mu neex ku mu jubal ko moom yàlla subhanahu wa taala ndax yonent bi saa salaam mi ngi nii gis ñii mu yaakaar ne dootuñu tuub mu leen di ñaanal alkande te tuub nañ ba seen lislaam rafet mu ne waa ji lu mu nekk yéeféer lu mu réer fal qulub bi yadillahi subhanahu wa taala xol yi xol yi ñu ngi ci loxo yàlla subhanahu wa taala ñetteel mooy isbaatu wuquul ibtila bil anbiya li yanaalu jazil sawab bu kenn jàpp ne yonent yi yàlla du leen natt ah xam nga Sénégal moom Sénégal kilifa diine yi du ñu am nattu est-ce que jàpp ngeen loolu loolu ñoom loolu la ñuy jàpp sénégalais yi ñoom dañoo gëm ne xilifa diine yi dara du leen dal ay ñoom ñoo aar Sénégal sa nga ñu ne ñoom ñoo tax Sénégal li fi nekk nekk fi kon de kon de kon de musiba lañ fi def ndax fii lu baax nekku kilifa diine yàlla xoolu ko ñi tëdd Irak ñoo gën a baax ñi tëdd Sénégal te Irak jàmm amu fa un million musulman ak genn wàll day nañ fa un million ak genn wàll ci juróom fukki at yi ñu passé un million ak genn wàllu musulman ñu ngi fay deeb chaque jour nga dégg ay attentat ci marché yi ci jàkka yi ci hôpitaux yi ay te pourtant Seydina Ali fu lañ ko suul te du ngeen mën ne waa Sénégal sëriñ ñi fi tëdd ñoo gën Seydina Ali wala wala wala wala ah da ngeen a ragal tontu dama def benn waxtaan ci benn ngénte ma pare borom ngénte li ne ma yow damaa dégg sànq ngay wax ne ginnaaw yonent yi saxaaba yi ñoo ñoo fi gën ma ne ko waaw mu tuddal ma ay tur ci Sénégal ne ma diw ak diw ak diw nag ma ne ko ñooñu imaam Malik sax leen gën te imaam Malik doon saxaaba imaam Malik du woon saxaaba mooy ki ku ki ki waa Sénégal naan ci ngiram lan nekk du woon saxaaba ma ne ko kooku moo gën ñi ngay wax te noonu du saxaaba mu ne ah ma ne ko waaw mu arrêté ma arrêté bu continué ma continué Sénégal yi foog ñu def seen bopp ne yonent bi dafa ne xayru naas qarni summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum summa lazina yalunahum ñi gën ci nit ñi mooy sama génération ñoo gën ñëpp ñu ne ko ñu ci tegu mu ne ña ca tegu ñu ci tegu mu ne ña ca tegu ñu ne ñu ci tegu mu ne mu noonu lay demee ba àdduna bi jeex kon kay ñii wala ñu naan kon ñoo gën kon f- f- àdduna bi jeex na di nan di la suñu xel sénégalais ñoom dañoo gëm ne Sénégal ñoo raw islaam ci àddina bi ñoo moom lislaam ñoom sax am na lu ñu bokk ak yàlla bokk faf léeg-léeg nga dégg ñu ne Sénégal li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk Sénégal lu fi nekk yéen fii amul diine di fii diine amu fi di Sénégalais yi xamuñu sharia da ngay dégg sax ñu naan ñun sharia suñu yoon nekku ci dégg ngeen fii temps yee passé ki doon wax muuru ñun muuru wunu ñun suñu yoon ci muuraay ñun duñ ko santaane duñ ko def waaw walla loolu fii wax jee bari moo tax gis ngeen football bi sax dañuy jàpp di dundul li xamul dara wax rek wax rek sénégalais daal bu wax mun na noo wax moom ba dem États-Unis ba jël siège Barack Obama bi moom mun nañ ko moo tax gis nga fu ñu dem monde bi fu ñu dem poste bu ñuy xëccoo ñu fal leen parce que wax lan mën seet leen rek monde bi poste yëpp ñoom lañ koy jox lu africain yi di xëccoo tubaab yi ak sénégalais lañ koy jox parce que sénégalais moo fi dàq wax waaye jëf mënuñ dara fu ñu dem ñu wulli leen tous mënuñu ko ci diine ji tamit noonu lañ mel dara lañ ci mënul dara Sénégal rek ngay ñëw gis xalifa général bu jàngul xalifa général bu jiite ay jullit te jàngoo waaw jànguma de alxuraan xaw ma ci dara loolu daal di nuróog neuf laa ci xam te yaa jiite ay jullit fun jëm fun jëm fun jëm fun jëm fun jëm loolu jaara laajte la fun jëm mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ jëlee ne moom ni mu nekkee mbindeef yàlla daf ko teg ay natt ni mu nekkee yonent fort yàlla teg ko ay natt ngir lan ngir mu gën a am tiyaaba ngir martabaam gën a yéeg yàlla subhanahu wa taala su bëggee ay nit da leen di natt inna allah isa habba qawman ibtalahum yàlla waxu la nga feebar pour nga yaakaar ne dala bañ koy bëgg a yéegal sa martaba terewula liggéey bi pour bañ la déedéet dafay xool yow ndax nii nga ñàkkee nii amoo liggéey bi ndax di nga muñ ni nga jàngee ba pare ni yàlla natt la te xool ndax di nga muñ ndax doo fi sàcc ndax doo dem di agressé ji ndax doo dem di triandé ci ndax doo dem di dugg ci lu araam xool la di xool ndax yow yàkkamti woo am na ñoo xam dañoo yàkkamti yàkkamti ne ñoom fal force dañuy am léegi léegi nii walla da yàlla di la natt teg la feebar ba nga xam ne am nga borom boo xam ne su ko neexee tëral la bu ko neexee yëkkati la bu ko neexee nga am bu ko neexee nga ñàkk moo lool mooy yonent yi alayhim salaam yàlla da leen di wan ne li ngeen takk ci garaat yëpp bu leen yaakaar ne nag lu leen lu ngeen bëgg rek ngeen di am bu leen yaakaar ne rek lu leen neex rek ngeen di am loolu mooy ñeenteel ñetteel ñeenteel mooy ataxalli bi sabr jullit dafa war a taqoo muñ wa taxamulil aza ak yenu lor yi fi sabili daawa ila allah ci yoonu ci yoonu woote jëm ci yàlla mbokk yi bu fekkee da ngeen a bëgg a nekk ay jullit yuy woote ci yoonu yàlla foog ngeen taqoo muñ foog ngeen muñ muñ ci yoonu yàlla ak ngeen nangoo sëgg ñu sot ti jafe-jafe yi ak coono yeeg musiba yi seen kaw foog nga nangoo sëgg di dégg lu nekk di gis lu nekk nga muñ ko sëgg yenu ko ndax yonent bi loolu la defal dafa nekk yonent di woote waa Màkka lànk génne ko mu dem Taayif ñu dóor ko ba deret ji sotteeku mu dem Médine gis ngeen découragé wul benn yoon muy woote di yanu lor yi di muñ di feebar wax naa leen sànq yonent bi yaay Aïcha nee na daanañ toog weer cin du tàkk suñu kër te pourtant jamono yooyu ay gëléem a ngi fi woon de wala ah ay xar a ngi fi woon de wala ay nag a ngi fi woon de wala ay béy a ngi fi woon de wala ay garabu tàndarma a ngi fi woon de lu nekk a ngi fi woon waaye yonent bi du wax saxaaba yi indil leen ma ko ma lekk ndax man la yàlla yónni day xëy suba dugg néegu Aïcha ne ko ndax kër gi am na lu ñu lekk mu ne ko déedéet mu ne ko xaaram kon ma continuer woor xaaram ma woor continuer benn bis fa tëdd guddi mënta nelaw ndax xiif moom yonent yàlla Muhammad mu tëdd guddi mënta nelaw mu génn muy dox mbedd ba càgg mu dajeeg Abu Bakar mu ne ko lan la mu ne ko damaa xiif ba mënumaa nelaw mu ne ko pourtant man tamit looloo ma génne de ñu dox ñoom ñaar ba càgg ñu dajeeg Omar ñu ne Omar lu xew yonent bi damaa xiif ba mënumaa nelaw yonent bi ne ah kaay leen dem kër abul ayub al ansari ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xiif ba munta nelaw xiif ba munta nelaw muy toog weer cin du tàkk këram ñun ñi toog fii kan la guddi jot nga ñàkk reer ba naanoo fonde fukki dërëm juróomi dërëm meew juróomi dërëm suukar cent franc bi dee kan ci ñun fii kan ci ñun moo fi toog guddi reerul kan ci jàkka ji yëkkati sa loxo kan ci ñun moo fi toog weer cin tàkkul seen kër kan ci ñun moo fi toog guddi gu mu reerul loo dee dee dee boo amee cent franc naan fonde mu tàng nga tëdd nelaw te day am meew day am suukar nga ñëw ne meer fonde mu ne ah nga ne ko jaay ma fukki dërëm fonde mu tànqal la kook def ci nga jaar ci may pour la futa bi jënd suukar juróom meew juróom nga yëngal tëdd naan sa poti ndox ne alhamdulilah rabbil alamin daal di nelaw yonent bi moom da doon toog du lekk mënul lekk amul lu mu lekk mu génn ndeke du moom kese de même ci saxaaba yi mu dem kër abul ayub asalaamualeykum wa rahmatullah soxna si ne ko góor gaa ngi ci tool yi ñu yónnee mu ñëw bi mu ñëwee mu xool heure bi yonent bi ñëw këram heure bii du heure bi yonent bi daan ñëw mu xam ne am na lu xew mu daw songu xar yi yonent bi ne ko mooy tul buy nàmpal mooy tul bu ëmb mu xool mbote mu ndaw tëng mu daal di koy rey mu ne mu ne doom yi gaaw leen gaaw leen gaaw leen gaaw leen ndeysaan mu ne jabar ji gaawal bi ñu daggee lenn pour gaawantu pour ñoom ñu lekk ñu indil yonent bi indil Omar ak Aboubacar yonent bi dafa dagg ci liñ ko indiloon mu ne Abul Ayyub wool kenn ci xale yi mu dem jox Fatima ndax weer a ngi nii lekkul yàpp Fatima weer a ngi nii lekkul yàpp nañ leen yem fii ba incha allah suba ak jàmm salaamaaleykum